taw bi bi mu ñëw fi presque bu ngeen xolé mbéd bi tey ji suñu mat la yaangi ci biti ñun presque mën naa ni jeudi ba légui fanan moom ci kër gi tanaka mën naa ni démb lañ fi commencé fanaan démb lañ commencé fanaan ci kër gi dañuy lal benn mbajj teud ci ak ci karaw ci lañ teud amuñu mat la amuñu dara suñu mat la yépp nga ci biti vraiment mu def nek ay yak yàq yak yak yu graw la bu ngeen xolé niveau ndox mi presque demo na 1 m 50 dugg ci kër gi vraiment mu ko affaire bu affaire bu tiss la wax yalla fi man na nek zone ndox man na bañ nek zone ndox mais problème bi mooy dëkkuwaay yi mo mo téggul ci yoon tey ñun mën nañ tey suñu fi biñ fi biñ fi nekkee ji mën nañ ni suñu papa biñ fi ay néegu ñax fi nekkoon ay sàkkat te inondation musul am kon donc ni ñu dëkkee dëkkuwaay boobu moo demewul noonu comprendre nga ndax sàkkat mënut a téye ndox néegu ñax mënut a téye ndox kon donc bu néegu ñax amee inondation amul terrasse yi ñëw vraiment bloqué yoon wi vraiment ça pose problème maire bi ñëw nañ fi xool à chaque fois bu lu ni amee dañuy ñëw rek xool nangam nangam na fi gën a fi nangam dañuy jàpp ci moom vraiment. am nañ yaakaar ci moom ndax ki la dig jox la ndekki yàlla man naa dogal ni moom bu waxee añ di nga di nga di nga raxasu waaw kon vraiment du c'est pas la mu ñu fi daje nañu dajawaat nañu te lépp lu mu wax rek def na ko kon donc ñu ngi koy gërëm te xam naa yàlla dana ko jàppale. waaw tey sama visite bi tey euh, comme na lu ko xamee euh, dama ñëw encore dama delluwaat encore njëkkoon naa fi ñëw la semaine passée à Medina Fall bi yoon cimetière bi la woon bi passe tamit. am naa fi sama ay nawle yu fi nekk sama ay mbokk yu fi nekk sama ay militante ñëw di leen masawu ah, te ñëw teel a bay mas di leen masawu euh, parce que dégg na affaire bu mu amee di nga ko déggee automatiquement man dama mujj ñëw euh, man ne damay ñëw tamit indi sama ndimbal. parce que man wax naa toujours si mouvement bi mooy mouvement bu xam ne lu ko yitteel lu ko tax a jóg mooy jege askan bi jege askan bi mooy lan fex lii nag lii moom lu ñu tuddee inégalité sociale.

donc bu dëkk état aussi bon war nañoo fekk si leen loolu jàppale leen loolu li loolu xam dara ëmp wu leen am na station d'épuration bi nekk Kër Seyim Ndoye mais loolu uniquement au usées rek lay jël mooy ndoxu foos yi ak yeneen yeneen yi am war na am benn station boo xam gis nga espace équipement yi nga gis équipement yi réservé pour ça parfois s'il y a bu amé ben problème bu am rek ñuy sotti ko foofu mais ma limay may limay li moy war nañu am ben station boo xam au uniquement au pluviale parce que xam nañu ñëpp Thiès dafa nañ ci ben bofon dafa suufee ndox bu ñëpp fi lay wàcc fi ñu toll dafa dafa suufee tay ndox yëpp yëpp yu déversé fii lay wàcc ci donc solution bi mooy lan rek faire un projet de pavage projet pavage mooy lan en même temps tamit defaat su ko nepp ay genre regard yu xam ne tamit ndox yi bu ñëwee automatiquement ay grillage yu automatiquement foo lay sotteeku rek dem sotteeku directement si station bi ñu war a créé mooy pluvial bi xam nga ñun euh, ay techniciens nañu li may faral di wax mooy ñun suñu wax bëriwul parce que lii la ñu xalaat bu ñu yàlla tey defoon jàmmatee ni jël maire bi urbanisation ni ñu njëkk lijjanti mooy lan dëkkuwaay bi ñu dee dëkk sax si benn kër amul kayit d' abord moom mooy première solution xool aussi tamit ñu dëkkuwaay tamit fexe tout que au moins ñu dëkkee ku nekk am jàmm fi nga dëkkee ñun en tout cas du façon suñu côté am nañ solution. Euh, lu ñu wër yëpp parce que boo xoolee ay macha allah ay techniciens nañ ñu xam xarañ nañu si wàllu métier bi. toujours je le dis ma ne ko état euh, autorité même le maire def yëpp parce que tellement sollicité service sax du leen ko may il faut mu am ay bonne volonté li may faral di wax toujours élection bu jotee nii ku rey dem leb ji xaalis banque dem tay la këram pour lan pour mun a nekk dara donc yow sa bopp nekk goo dara sax da nga war a contribuer nit balaay da ngay dara yëpp fekk si la nekkuñu ministre nekkuñu directeur général mais ñu quand lu ñu yàlla sudu ndaw ndaw ndaw ak des amis des partenaires yi ñëw jàppale ko parce que li may war état yi def yëpp maire mu def il faut que aussi moom ay bonne volonté xam ne gëm nañu seen bopp gëm nañu seen gox di ñëw jàpp si population gis leen waaw allah rabbi bu ñu yàlla suturee waxuma pour cent mais à il soobee yàlla ñun pare nañu pour régler le seen bopp dinañu gis est-ce que Habib Niang la ma xool am mënul nekk. parce que d'abord li may wax rek mooy dëkkuwaay tamit balaa muy neex nit bu am nit bu tawee am jàmmam toog këram xel bi dal rek mais macha allah ñun si loolu ñu jàng ñun pare nañu vraiment ñun suñu bu ñu yàlla suturale vraiment jàpp nañu ak état bi pare nañu pour régler le problème.